bàyyi baabu Pape Diouf nag wax dëgg yàlla yow daal yow daal lu ne yaa ñu koy def loo c'est-à-dire saa yow defee dara ñu ne déet waay doo fa yam da nga ñuy tooñaat encore te fan yii yaa nga ñuy provoqué ak maalaw man bàyyi baabu sax dama wax gëm ak moom ndax ñu ne fii ci télé bi ñu def émission boo xamante ni keroog man damaa mujj mer parce que dañu dañu obligé woon dagg émission bi parce que ñun dañoo sonnoon ci night show boobu noonu mais maalaw Pape Euh, d' abord dañ lay bàyyi nga nuyoo ak suñu xarit yi nga xam ne ñoo xëy ci fajar ba tey euh, di la xaar ci yeewu leen bi. waaw salaamaaleykum Pape maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. gërëm samay waajur di nuyu sama sëriñ sëñ Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam. Mm-hmm. di wax sénégalais yëpp. Euh, une bonne et heureuse année 2016. Mm-hmm. fin d' année 2016 defoo émission de. voilà ko commencé ba tey dëgg la. voilà donc nekk ñu fi ñu ngi woon Europe. jaar nañu Belgique. Torino Brescia. jeexalee Paris mu nekkoon nag tournée bu neex. Mhm. may wax sénégalais yëpp bon et heureuse année 2016. 2016 mhm. nekk atum xéewal atum naataange atum mhm. sutura. ci Sénégal. comme ni nga ko waxee nag. Baye Babou moom. fi ne nii moom. mooy mi ngi toj dëkk. <laughs> Ah, waaw man lu mu leen njëkk bëgg laaj mooy ndax maalaw bu askanu law ba ngeen ko ngeen moo tax ngeen woy ko. waaw bien sûr maalaw. Euh, boo déggee maalaw mooy lawbe. Mhm. mais xam nga lawbe. maalaw làbb. Euh, ak géwél. Mhm. par exemple man askan wi ma bokk. Mhm. mooy géwél. dafa am maalaw mooy lawbee yi. Euh, ñeeñoo. mooy ñi nga xamante ni ñooy bijoutier yi. ñetti askan la. yoo xam ne dañoo am jom ci seeni cosaan. te boo xoolee tey ay facteurs de développement lañu famille bu ci nekk. ndax ñetti askan yooyu rek ngay gis naam ci côté. Euh, intellectualité mm-hmm. am nañ ci mm-hmm. mais bariwuñu mm-hmm. mais teewul ñoom wiiruwuñ ci état tey boo demee ci lawbe yi ñi ci nekk ay bureaucrate bariwul mais teewul tey ci développement wu réew dëkk boo dem ñoo nga fa dëkk dëkk boo dem ñoo nga ah. donc moo tax ma ne law ba kenn kenn yebu leen donc wayu ma ko pour pecc mi mhm. mais dama ko way ngir sargal leen kañ leen mhm. ngir seen am jom bu ñu am jom mhm. xam nga law ba kenn yebu leen góorub jigéen dañuy daan doole fu góor ñi yendoo yett jigéen taxul seenu jigéen yaa fuus jigéen yaa ngay nasi fer di jaay boole ceeg seen poti cuuraay maanaam noonu la baaxee noonu la baaxee day seen maanaam am jom ak seen dama lay dog lu leer laa la wax de ku ci bëgg wërsëg nii voilà ñaan leen ñaanal ñaanal morso law bi ko waa gis wala feru law dafa baax de je te jure vous ne me croyez pas mais c'est intéressant feru law mais bu dee euh. nga gis garab nii mu dee lawbe bu jëlee sagaram. <laughs> takk ko ci garab kii wax ak man ci horaire bi nee na fer yu digg yi la ñuy wax. ak <laughs> yi waxuñu sew yi. yaa dégg Pape sagar bi rek boo ko jëlee takk ko ci garab gi. sagar lawbe dafa garab googu day meñ wallaahi pour te dire que lawbe sax tuddul lawbe. Mhm. mais dégg naa lawtan la tudd. wallaahi ma la luy law. waaw moo tax nag ma profito. Mhm. bi ma demee Rome. Mhm. lawbe yi yéeg ci kaw scène bi. di ma teral ay booy lawbe ne ma grand woyal lawbe ñu teral la fii lawbe dañu fee bari. ma woy ko keroog ndeysaan xam nga ab géwél xaalis rek la bëgg. wallaahi keroog bi ma paree xool sama poos ci kanam ci ginnaaw mu débordé. wallaahi. man ma daal di fipp ne leen nag ah bak ngeen jàpp. wallaahi su ma demee néegi Ndakaaru Njaay dinaa leen waxtaanee. moo taxit. te loobe yaa nga seeseen loobe yaa nga njaañ. wallaahi sëñ Modou Gala Sow seen maam. wallaahi wallaahi bu ma ko defee nag wax dëgg yàlla. Uh-huh. dem Gàmbi. Uh-huh. daja faat Baye Babou mii. Uh-huh. muy xale bu yaru di xale bu am talent. yàlla dogal ma invité ko ci Maalo. mu ñëw wax ci loo xam ne man mii sax damaa yéem. donc euh, xam naa après dinañ ko bàyyi moom mieux teg sénégalais mhm. waaw man moom defe naa ne day rab wala day taasu si parce que yow boo woyee ba pare moom bu jëlee partem man xaw ma ndax rab la wala taasu la wala ñaar yëpp nga jël boole pour jox affaire bi kii daal lu lu neex waaw asalaamaaleykum di nuyu diaspora bi yëpp ñuy seetaan Télé Futurs Médias di nuyu Gambian community bu nekk Sénégal di nuyu sénégalais community bu nekk Gambie waaw Pape dafa baax waaw loolu man sax duma ko wax parce que moo ma mag mhm. baaxaayi paap moo ma mag mhm. waaw daf ma invite si maalaw bi ma ñëw mais nekkul loo xam ne dama ko binda wala dama ñëw rek freestyle mais dangaa gis ne son boo xam ne la mu ngi woon si bopp bi. Mhm. ba pare bu ma déggee mu wax maalaw ma xam ne ku wax maalaw wax lawbe. si laa ne lawbee mën a lëmbal bu la tiimee nga daw bokku daan wala ma lawbee mën a fudan bu la tiimee nga daw bokku daan. waaw comme bu ma gisee loolu si laa ne paa. xanaa foofu dëkk la. Kudang waaw dëkk la biir Gàmbi. Ah, waaw biir waaw waaw waaw Kudang. mais. tey waaw si laa ñëw eeg dafa nice daal afta si la ko apprécier. waaw muy def euh, invité d'honneur ak boobs. invite ma. ak rek ma ñëw. dooliwaat gare waaw dooliwaat def ay bagages di sax si la maalaw. nekkaat mais mais li nga doon wax thème bi si lan la parce que ñun dañuy déglu. si laaw rek ak dëkk boobu mu comme ay yow yow yow mun nga waaw comme yow la bàyyi baabu wala lan la. <laughs> ñu xam bu baax parce que man déglu naa dégluwaat. dégluwaat démb doo en fait parce que. voilà day mel ni rap day gaaw donc on écoute déglu plusieurs fois mais duñu man man gaam bi rap mbalax laay def. Mhm. Mhm. waaw dama jël rap bi boole si mbalax bi jaxase ko. te star moo tax bu ma eegee si biit bi maay confortable. Mhm. waaye lu ma fawa mooy suma xeet gi duggan a gune gi faxas xar si digga bi bugut benn bu dut bii xam na kuy dëbba ci génn gi jox ko ndam jox ko ndam sax ak ñoñam ak ñoñam ba si askanam askanam bi ma wan kanam pundal suba faxas ngoon yoon bi gudda ku ne aw sa yoon ku ko weddi nekk xar sa fey rek mooy jox la ngooñ ba si kaw a ñu aj ko ku ko aji ding ñu tooñ biit baa ñu jege ñu naj ko ñu sëy rek am si doom ku la teree lombal yëngalal li masi buy tobal su la neexee taan bi nga pundal suñ xol yi gaddu gaddu ñu bégal pile kenn du la poos suñ biir yambar du fi soos dañ metti te soxor noos su la neexee la tel joos bamboo comme kaa kali dox sa maan bi taktikali maan bi jub ni benn tali dooma dab nda daba la sori dama gaaw ni bal buñ fetel eh Pape Diouf yaay Samsung ñii Alcatel. ah waaw waaw. yaa wax ni comme noonu rek laa ko tegee waaw. waaw. non mais man nga jàngaat texte yi parce que. waaw Mouhamed Ndiaye il m'a fait signe. moom nee na comprendre bi dama bëgg nga reprendre ko nga ne bu la lëmbalee nga daw ba fan. waa ma ne ko lawbe ma da fudan. Hmm. bu la tiimee nga daw ba kudan. ministre kaatay garde këram. xam nga foofu cuuraay ak a saf ndiga waaw. waaw ma ne ko jàpp si sa ndiga bu ko fecca di sega mm-hmm. jàpp si sa ndiga bul rus ba ne maire bi ñëwut ñetti yoon la nag doo rëcca jël lox ma ko bu ko fecca di sega non non dañuy def nga ne law be di lambal ma ko law bee mën a fudan waaw bu la tiimee nga daw ba kudang non xaara xaara maa ngi fudan mais da ngay gaaw nag mais damay bind yow damay yëg maa ngi fu laa toll fudan donc law bee mën a fudan waaw waaw bu la tiibee nga daw bakku dag déedéet bu la tiimee nga daw bakku dag waaw miniskatay garde déedéet bu la tiimee nga daw bakku dang ku dang d'accord. mais c'est à combien ci ñaata kilomètres la nekk digganteem ak Banjul Koudaal. waaw Koudaal nag sori torop. Ah. waaw ministre tay garde kiram

very very very very maalaw mu ngi ñëw. ministère waaw ministère ay yu ñuy yu ñu yokkaat. ak lan waaw ministère la jànge. ñu reprendre non law bee mun a fudan. waaw bu la tiimee nga daw ba kudan. nga daw ba. waaw mel ni ko xaw tuuti. ministère tey garde këram. waaw. <laughs> lii de barke Serigne Touba ko dinaa taasu yoo xamante ni ah. law bee mën a fu dal bu la tiimee nga daw ba ku dal. miniska tey gar na këram ak lan. cuuraay ak saf ndigal booy Pape Cheikh moom yee ko neex. bari job cey ñafala te moom moom franchement il fait un tabac <laughs> extra. il dañu la bëgg franchement. bi démb. waaw waaw ëpp pour xam rek li muy wax. li muy hmm. peut-être nit ñi dañuy fàtte rek ce matin maa ngi koy wax dina dina ñu ñëwaat ci bi ñu ko invité daaw euh, night show mais euh, bête de scène la quoi cest dafay tàngal keroog bu ñun ñëpp dañu waar woon. Euh, mais Pape yow laa bëgg a waxal lan mooy sa secret li ma instructeur Pay Fall di wax sànq mais Pape du noppalu dama koy dégg Paris dégg ko Belgique dégg ko Blouy dégg ko Baaramundi. c'est ce que live bi dafa bëri temps yi. waaw lu waral loolu. man man moom aw ma secret Pape ah. man moom sama liggéey rek laa gëm te dama koy def naturellement. Ah. yàkkamtuwuma waaye tamit du ma yëxantu. Mhm. donc euh, musique laay def. Mhm. ci laay tedd ci laay dund. Mhm. et je pense que ni xale laa ndaw laa. tollaguma foo xamante ni war naa mën a noppaleeku quoi. donc euh, damay sant yàlla nag bu baax a baax a baax parce que booy def dara askan wi di la bëgg. boo leen woowee. ñu ñëw man damay faral di wax ni sama sama public. Euh, il faut may góorgóorlu parce que sama public ñoom dañ nekk public boo xam ne. bëgguñu bruit. du ñu public de bruit. donc ñoom ñi ngi toog seen kër. ñi ngi toog seeni bureau. ñi ngi nekk fu nekk. di bëggee Pape Diouf di ma consommer. su ma amee événement woo leen ñu déplacé wu en masse. Mhm. ñëw seet si ma. bëggee ma ma it ma bëggee leen donc loolu. dama koy sante suñu borom bu baax mhm. di nag di gën góor góorgóorlu nag mhm. lu may góor góorgóorlu rek dama koy yokk parce que ki la bëgg mënoo ko fay mhm. mais man awma benn secret bu dul liggéey rek quoi man parewuma si Baye Babou en fait man li ma ko déglu yëpp soo seetloo waaw li muy wax waaw intéressé nañu bu baax waaw léegi en fait man li ma seetlu mooy ne dafa bëri rime en fait xaw ma ndax yow bàyyi nga si xel mais ma bëggoon xam ndax moom daf yow looy ñëw nii def ko du du takku takk la du loo xam ne da nga koy da nga koy préparé hmm. parce que sa sa bi yëpp da ko da nga ko rimé ba mu waaw waaw ah, texte bu ma texte maalaw boobu suma son la comme faxas la tudda hmm. moo tax ma ne leen kaay leen ñu faxas ah, mooy fecc bu bees mais wan ñu faxas waaw kaay leen ñu faxas kaay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas melal ni kuy melal kuy fogas kuy fogas pënd bi xanaa ci waaw waaw ah, melal ni kuy est-ce bi am na mën nañu am son bi faxas bi daal waaw non il faut mu ñëwaat il faut mu ñëwaat cest à dama bëgg dama bëgg man ñu jógee ñu jógee man fu daan beeg ku dal bi dama bëgg ñu ñëwaat ci. Eh, eh, euh, parce que attention attention mooy mooy début bi dama bëgg mu ñëw début ba fin ba ni ñuy faxasee man yooyu laa bëgg ay ta ñëwal. ñëwal indiwaatal ma ko parce que c'est un très beau titre euh, ak baay Babou ci euh, Malaw bu Pape Diouf est-ce qu'on peut écouter Mohamed. ñu déglu ah. ah. fomp bi ah am na fomp. waaw mu ne moom du woo Mohamed. non Mohamed Ndiaye Mohamed moom moom moom moom xam naa ne moom maîtriser na Malaw. Ah. mën na Malaw ba ci fomp bi. seytaane la boo xamante ah. mais Pape bu jegee di jaay seytaane. c'est que nag est-ce que xam nga ni yi. ñii xamoo leen ñoo dàq fecc. am naa ci ay satu ay satu tey rey. keroog suñu soirée King Fat Palace. Uh-huh. keroog laa gis même ñi nga xam ne ñoo dàq bind bindu yu garaaw yi <laughs> keroog non seulement dañuy lëmbal Malaw. Uh-huh. mais dañ ko doon taas. ay ñu dem ci Malaw tuuti ñu dem ci Malaw tuuti. Malaw. maalaw kaay leen ñu fa xas euh, nga njaag de dama am sama yaay boo xamante ni Adja Jee Astu lawbe mhm. ak euh, lawbe Sénégal yëpp nee nañu bàkk nga njaag de bàkk nga njaag de bàkk nga njaag ndax lii nga leen wooy en fait dafa man li ma jaaxal mooy ci benn semaine rek mhm. affaire bi nekk euh, hymne national bu doy waar quoi ñëpp di ko woyandoo loolu loolu loolu Pape daal macha allah. ñëpp di wër woy bi waaw xam nga nag euh, askanu lawbe Pape moo toll noonu. Mhm. ndax na lawbe yi comme ni la ko baab waxee. dañoo bëri jom de. morceau bi pareegul lu baax. morceau bi sax pareegul. Mhm. parce que am na partie bu ma naan lawbe yi yéen ay noobal ngeen. pire donc euh, mooy profité sax di remercier président wu national. bu lawbe yi association lawbe yi association lawbe yi mi ngi tudd Baara Saw. Baara Saw mu baax mi. démb rek bi ñuy def vidéo Malaw. Mhm. Euh, moom laa woo wax ko ko. vraiment mu waajal ko. li liñ ci def yëpp ci vidéo bi. baara def lépp dépensé lépp ma ne ko mais baara mu ne ma non pap ñun mënuñu laa fay. ndax lii dafa rëy. wallaahi ba pare euh, fi mu nekk nii euh, lawbe yi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci réew mi. ñu ngi waajal guddi lawbe gu mag. xam nga loolu mosu fee am. déedéet déedéet déedéet mag déedéet déedéet. waaw Boubacar dama lay invité. ndax nee bëgg a sargal. dafa bëgg la waaw nee nañ dañ maa bëgg sargal dañu bëgg a def sargal Pape Diouf biir Grand Théâtre te nee nañ ñoom xajuñu Grand Théâtre mhm. ma ne leen nag ah fii day salle bi fi gën a mag mooy Grand Théâtre stade xanaa ah stade moom day ëpp stade de l'amitié <laughs> donc maa ngi profité di remercier baara uh-huh. wax dëgg yàlla démb ci coono bi ñu am. Mhm. ñëw jàppale ma ci vidéo. clip bi ñu ngi tourné vidéo bi waaw ñu dem ci pàkk lawbe yi. dem lañ ko tourné. parce que comme que bon euh, sénégalais ñoo ko laaj. Mhm. Mhm. c' est vrai pareegul. parce que ñu ngi waajal ay affaires yu bees. yu war a ñëw ci 2016 bi. mais comme que bon émission bu ñu doon foowee rek. wax dëgg yàlla sama rakk ji aussi ñëw apporté ci touche am. bi dem ba jël benn ampleur. na ampleur bon ñu ne comme que son bi neex na sénégalais ak gambien yi. nañ ko def vidéo dem woote woote ndaje Malaw. waaw ñu jàkkaarloo rek defante yu baax waaw xam naa dina génn ci semaine bi kenn mësul gis loolu en tout cas dafa ànd ak lëmbal gu tar xam nga lawbe euh, mm-hmm. particularité jigéenu lawbe lëmbal la wala dërëlee ñoom dañuy dañuy lëmbal ay lëmbal yu sew nag dox di dox di lëmbal loolu dërële lañ ko tuddee bu ñu la dërëlee ci woy wi nga nga bàyyi àddina euh, xanaa bàyyi baabu dootoo dellu Gàmbi de ah non dinaa dellu nag <laughs> waaw waaye ah, ma profité di remercier Cheikh Sarr. Uh-huh. Cheikh Sarr moom moo ma njëkk a invité radio bu ma uh-huh. ñëwee fii. Uh-huh. ak Prince. DJ Prince di leen bëggee. xam nga comme di bëggee famille Pape Diouf. mais man dama bugg a wax a Gambien yi. comme ah, sénégalais yi dañ bëgg. dañ bëgg. te Gambien yi tamit dañ bég mhm. waaye maa ngi ñaax Gambien yi mhm. Pape Diouf mu ngi waajal ñëw Gambia mhm. xam nga comme Pape Diouf sigil na Gambia xam nga comme soo gisee tey man ma ñëw toog fii yàlla jëma ji moo tax xam nga comme Gambia nañ jàppale Pape juuf bu baax a baax a baax mu ngi waajal tournage bu garaaw nag waaw ba pare nekkul Gambie rek laay am Pape mu ngi ñëw Europe mu ngi ñëw Amérique mu ngi ñëw England so na gaay pare xam nga Gambian yi fépp foo leen munti nekk fu Pape Diouf oote rek ngeen jóg ngeen jóg jàppale ko parce que Pape Diouf mu ngi béy waar di dimbale Gambian artistes yi xam nga comme man aw ma dara lu ma ko walu di ko ñaanal yàlla xam nga ba pare di bëggee Gambian yi tamit ñu nekk Sénégal fii parce que jaama rek moo wóor Gambi Sénégal benn dëkk la kenn mënu ko xaar ñaar parce nuñ santa la gaay santa lu ñuy lekk la gaay di lekk waaw tur yaa bokk diine baa bokk culture bi tamit benn la xam nga di ñaan di ñaan ñëpp ñëpp ñëpp ñu jàppa si ñaanal ñu yàlla sootil yëpp daal ba pare di bëggee suma label Jalof Arts bi nga xam ne ñoom lay liggéeyal bi di bëggee Prince Arts bi nga xam ne diggante Prince Arts ak Jalof Arts ratax na ratax boo xam ne xamuloo ñan kan mooy kan xam nga di bëggee ñëpp ñuy liggéey si télé bi fii nii. di bëggee tamit suma xarit yu nekk si biti. waaw di wax ne nag baabu am na tons ku amul tons util tons tons jox na ma tàngal tons jox na ma ataaya tons indil na ma ndékki di bëggee suma soppe bébé baas yal na la yàlla fay mu may toppatoo mais man du may nelaw. bu ma ñëwee. ndax bébé. paap. ñu baree ñëw di ma woo mais bébé damay téye ne ma toogal. gars yi ñooy ñëw xanaa xamoo bébé. mais bébé dafa garaaw. xanaa xamoo bébé. bébé borom baax la. <laughs> xanaa xamoo bébé. waaw di ko ñaanal yal na toog ba Seydina Mouhamed. yaay Mouhamed yóbbu ko Màkka incha allah. amiin amiin jërëjëf waay kontaan nañu en tout cas ñu ngi lay wax euh, bonne chance ah. Pape yow tamit kontaan nañu parce ñu ngi tourné euh, vidéo bi bu noppee dina génn am na yeneen projet yoo xamante ni yaa ngi ci ci 2016 bi pour sénégalais yi. waaw bien sûr xanaa moom tamit moom laay remercier rek mm-hmm. parce mm-hmm. que. li gars yi di wax rek xale bu loxoom setee day mën a bokk ak mag ndab te comme ni ko Babou waxee Sénégal Gambia benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi benn dëkk la benn dëkk la mhm. kenn mënuñoo kenn mënuñoo xaajale mhm. ñun heure bu ñu demee lépp lu ñu jàpp dañ koy bàyyi ñoom kon ñoom tamit bu ñu ñëwee ñun lépp lu ñu jàpp donc dañ koy bàyyi mhm. donc xanaa di remercier sénégalais yi encore une fois di ñaanal suma mag Youssou 2016 aussi projet yi mu teg yàlla na ci yàlla teg loxo ba vraiment lépp barkeel ci barke Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam di remercier aussi di ñaanal waa télévision Futur Média mhm. muy TFM mhm. parce que tey sama carrière mhm. dañ cey liggéey lu baree baree baree baree bari muy la famille Ndour li ko dalee ci Youssou bëkk ci gën a ndaw donc su ma limee sax damay juum maa ngi leen di ñaanal ci atum 2016 bi yàlla yokk seen xéewal yokk sutura si yokk teraanga ji ci barke Seydina Mouhammad parce que ñoom ak Pape Diouf man ak famille Ndour c'est une famille soudée. dañu dem ba ku ci nekk même boo gisul sa morom. xam nga li nga yëg xam nga li mu yëg. donc loolu lu am solo la. may ñaan aussi Sénégal yàlla def fi xéewal. surtout si gën a yokk di remercier suma tonton Cheikh Kanté. parce que ki démb. moo tax sax baabu ñëwaat. daf ma woo téléphone. parce que dañ ko doon def euh, nommé l'homme de l'année. ma koy féliciter aussi l'homme de l'année boobu jikko. ak waa port autonome de Dakar yëpp. suma tonton Cheikh Kanté. kooku dafa ak soxnaam Ami Diawara. mu woo ma ne ma Pape ma ne ko waaw mu ne ma eh bien dama bëgg Gambien ñëw. wallaay na Gambien ñëw. donc vraiment Babou aussi ñëw fa waaw def fa lu rëy. may remercier waal suma mag Mbagnick Diop. xam nga vraiment léegi baabu nee na baabu Kanté la tudd léegi. waaw yaa mais man euh, waaw di nuyu aussi sëñ aboo bu sëñ sëñ fàllu sëñ aboo falilu ku bëgg TFM la keroog bi ma demee ziyaare ko dafa kontaan ne ma maa ngi leen maa ngi leen di suivre. dooma laaj sama télé bi. TFM hmm. lay jàpp. waaw dooma laaj moom télé yëpp yi ci kër gi yëpp. TFM lay jàpp rajoom RFM. RFM lay déglu ak TFM. walaay sëñ sa. Hmm. ñu ngi lay tàllal suñu loxo. Hmm. ngir nga nga nga dolli ñu dolli ñu ay ñaan. waaw jërëjëf vraiment kontaan kontaan nañu en tout cas Pape. Euh, léegi dañuy jeexal ak revue de presse bi mooy acte bu mujj ci euh, yeewu leen bi euh, laataa yeewu leen. plus moom aussi sama frère Mohamed Ndiaye lañ ci àndal. Mohamed Ndiaye mon frère de la banlieue. maa ngi koy bëggee bu baax moom it di ko ñaanal liggéey bi muy def Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët. Ah, ah. yiw na ah, correct na yaru na mm. ba pare mi ngi def liggéey bu sérieux waaw am jom nangoo liggéey te Sénégal loolu rek lan la ñu ngi soxla macha allah ma ci yow la rek <laughs> yow man ni may consommer sa musique sax du ma ko consommer yenn musique yi. xam pour te dire. son bi ngeen teg léegi. je parle euh, lu amul seede baaxul. son bi 7 minutes et quelques la. Mm-hmm. baabu 2 minutes 49 lay commencé. kon miin nga. mooy je te donne des détails kon xam nga déglu naa ko. dëgg la ah, dëgg la ndeysaan. non buuba dafa fan Mohamed quoi. dóorkat la boo xam ne man kii ah. si yenn saa yi doo koo ray mu dee. munoo rayandoo Alpha ak Mohamed Ndiaye kon ñu fi des mais non dama la bëggoon indi benn affaire mais comme danga may araf naa ko bàyyi. sa jataay bi am na ku ci mënut a wax rimbax papax. ku ci mënut a wax. rimbax papax. xam naa kan amoo ah xam naa kan. ci suivez mon regard. ah. Rimba papa dafa jafe de kan la ci. xam naa kan la. ay te na ah, na wane boppam nag buñ lay jiiñ buñ lay jiiñ dara. da da eh, ngay kii kii da ngay leeral da nga réagir. bu ko préparé dana ko wax. wax ñu loolu am na wala amul voilà. ay te poule bi tuuroo ko man lenn rek wax Pape. poule ku la wax yow la. askanu lawbe ñu ngi lay. xoola eh, émission bi jeex na léegi dañuy kii dafa la mais Pape pourtant nag li muy lu am solo la. mu ne la mu ne la. nee ñu ngi may gërëm. waaw di ma sant. waaw bàyyi bu leen ko wax loolu yi mbax papax. moo ko wax wax ko wax ko. mënoo ko. Allez Mohamed Ndiaye la revue de presse. <laughs> ay jokkoon mais défends-toi rimbax rimbax quoi papax waa léegi dernier dernier mot bi pax waxal ñu xool ndax mën nga ko waxal naa la rimbax waa demal ci di topp papax ñu xool ndax mën nga ko. danser c'est mon amour non. danser autour d'un d'un d'un vaste. eh eh, eh moi je suis en train de t'aider. vas-y regarde man léegi maa ngi lay waxal rimbax. la revue de presse. waaw waxal naa la rimbax demal ci et dans le but de d'informer juste et vrai dans le milieu journalistique léegi am ah, fi <laughs> oui ma Aïssatou. d'accord tu veux que je te le dise chérie chérie. Rimbax Papax. ay de Pape. ngeen baal ñu Allemagne la jógee dafa ñëw vacances. oui ma Mouhamed demal. waaw non kii ba ma kii man ki xew kay jamono ji ki Pape Diouf xewal. Ah. na ma ba ma. ayca bu lay bu mag jërë jërë ngeen jëf. waaw jërë ngeen jëf. bu foor bu maalawee da mel ni kuy faxas boo ko yor jërë ngeen jëf. waaw ma ne ko jërë ngeen jëf. ayca <laughs> léegi.